Sonko tey moom peut-être bi mu nekkee Ziguinchor ba bi mu tëjoo këram xamoon na ne affaire yi fa mu jëm. xam na ne ñaari procès yi nga xam ne ñoo ubbeeku ci moom bu rëccee ci biir du rëcc ci bële. xam na ne ay galgal ci wàllu yoon tegu na pour mu disparaître politiquement mais boo gisee mën a atteindre objectif am mooy. Mhm. wax jooju mu wax. xale yi ñu ngi wax dañooy plan à plan mais loolu ñoom Baara Ndiaye doon wax naan Sonko day doon candidat nangam parce que ñoom bu ñu teelee nangu ñoom ñu bëgg Sonko ak di waxal di ko waxal bu ñu teelee nangu ne Sonko du nekk candidat rek mooy dañuy nangul état bi ne ko gagné nga mais foog ñoom di wax état bi ne force mooy doon suñ candidat moment boobu xam nga problème état bi mooy lan mooy lan mooy mais Sonko ñi ànd ak moom te kuñ ci invité muy El Malick ak kum ci mën a doon ah. da nga naan mooy suñu candidat ba Z ñoom bi amoon ñoom état ba ci dernière sortie El Malick exactement ñoom problème bi ñu amoon état xam nga ñoom El Malick ak ñu wër Sonko dañuy jouer ci communication politique bu saf sax pour ñoom itam utiliser li ñuy maanaam jouer ci temps yi bi ci laa doon ñëw mhm. cest à bu ñu teeloon a génnee ki nekk seen deuxième numéro seen deuxième wala seen troisième wala nangam kon peut-être ñu jaarale ko fu raw fi ñu ko jaar peut-être peut-être loolu ñoom teelu ñu koo wax waaye gars yi ñu lool teeloon nañu ko xam parce que Bassirou Diomaye lan lañ ko jàppee ab poste boo xam ne da ko def mhm. koo xam ne nii c'est un des impôts domaines ak fi mu jaar li mu doon ci réew mi. ñu mën koo jàpp téye boobu ba léegi mënuñ ko bàyyi mu wéy bàyyi bureau ba mu vide comme ça bureau ba mu nekkoon impôt domaine mais am na lu fa mën a réew mi. donc ñoom peut-être teeloon na ñoo xam ne numéro 2 baa ngoog ñu ne léegi nañu am fu ñu ko jaaralee. pour bu ñu ko fi bëggee def numéro 2 nangam. teg ay charges aussi ci kawam. teg ay charges yu diis dem ba yàgg sax ñu renforcer waat ay charges. encore mhm. donc à un moment donné ñoom li ñu bëggoon mooy xeex Pastef ak boolem ku ci bëgg a nekk candidat à tout prix. c'est-à-dire ci loo xam ne dootuñ ci am benn élégance dootuñ ci am benn gàcc ak benn nangam Sonko li tax mën a atteindre objectif nag mooy. mooy lan euh, maanaam objectif am du moom mu nekk forcément président moom. forcément. parce qu'il savait. voilà mais objectif am mooy moo doon. en tout cas li fi nekk jóge fi mais aussi premier objectif am sax moo doon président Macky Sall baña a laaj troisième mandat bañ a laaj troisième mandat ote objectif boobu bu ci mooy première doo absec atteindre na ko. deuxième objectif am moo doon donc alternance am ñu bañ dem ci li ñuy wax remplacement mais alternance am c'est-à-dire remplacement nag du lenn lu dul Macky Sall jóge fi Amadou ma toog fi. loolu kase la nag wax dëgg yàlla. continuité voilà. donc mu bañ doon lu ñuy lu ñuy dondante wala lu ñuy joxante di ko joxante ci ay lenge di ko jokkalante mais mu doon loo xam ne dañ koy voté ku sénégalais wóolu fan la donc objectif am yii ma la wax la woon première bi mooy doon Macky Sall bañ a nekk nekku deuxième bi mooy ñu bañ a dem ci ay jokkalante ak ay affaire de ruse ak joxante ak yooyu mais mu doon ay élections yu wér ah tere dañ ko bokk moom atteindre lu ñoom seen objectif waaye moom objectif am atteindre na ko ci ne Euh, maanaam système parce que xam nga système dafa dafa dafa dafa dafa transcender personne nit. Mm-hmm. à chaque fois damay faral di dégg mu ñun suñu jëmm amul solo. projet bi du ñun rek suñu jëmm moo ci gën a tuuti suñu bakkan moo ci gën a tuuti donc kon moom li tax mën a atteindre objectif am mooy. Mm-hmm. élection yi di ñëw ku dem ci biir bureau de vote yi daa fa fekk benn fiche boo xamante ne wala benn bulletin de vote boo xam ne bulletin de vote boobu ci ñoom la bokk. ci ñoom. maanaam li ñu indi ci idéologie ak li ñu indi ci système bi ñu bëgg a soppi système bi ñu fa bëgg indi ku dem fekk fi bulletin boobu bulletin ba nag ku ca dem. Bassirou Diomaye nga ciy fekk. mais ñoom ñoo koy faral di wax naan Diomaye mooy Bassirou. Ah, Sonko Bassirooy Ousmane. de toute façon mën nañ ci discuter peut-être ci ay côté. voilà te en plus <laughs> euh, te en plus loolu dafa bokk ci stratégie yi nga xam ni Ousmane Sonko euh, teg na ko mu nekk stratégie gagnant mais nag nekkul Bassirou dong moo doon moo nekk candidat am wala moo nekk candidat bi nga xam ni euh, Ousmane Sonko samp na ko jamono ci parce que mm. Cheikh jan Dièye aussi ci ay candidat la bokk yëpp si aussi ci ay candidat am la bokk Bassirou Diomaye Faye bien vrai que ne. Mm. moom la ñuy njort que ne moom la Ousmane Sonko di mu dem ci élection candidat yi nga xam teg na ko euh, kenn ki ñoom ñoo ñoom ñaar ñoo bokkoon fa nga xam ne mooy yeewi askan wi. Mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye ñoo bokkoon Pastef juste rek pour euh, wan état et euh, le régime actuel autant pour moi que ne soo leen xañee basiroo aussi mu dem mu mu bañ a dem. di maanaam dina am ñaar ñoo xam ne des nañ pour continuer projet bi kon loolu dafay firnde que ne Ousmane Sonko comme ni nga ko waxoon. tantôt que ne du boppam moo ko intéressé. mais projet bi nga xam ne jàpp ne mooy doxal askanu Sénégal moom moo ko intéressé kon euh, yeneen ak mook yeneen politiciens yi am na benn différence boo xam ne am na ko. surtout yeneen parti politique nga xam ne euh, toog nañ 2019 euh, demuñu élection. élection lépp rek seen bopp moom moo ko moo ko daal di waral. moom euh, nu mu tudd Ousmane Sonko cest à ñoom ni ñuy doxale euh, ci Pastef en tout cas li ñu commencé bu dee moom la ñu eggale ba bu ñu ñëwee yor mbir yi donc na ñu gën demin fuuf ñi fi nekk nii li tax mooy man tax gëm naa ne man gëm naa ne ñu bari peut-être ñi ngi koy woote woone moom la ñu àndal. Mhm. te peut-être bu falu woon du ñu doon ay ministre du ñu bokk ci. moom du ñu bokk ci gouvernement uh-huh. en fait dama gëm ne logique pàccoo ak séddoo bu ñëwee moom du ko fiy jëlee dama ko gëm parce que munoo atte nit ci lu dul acte yi teg le temps que ngay mm-hmm. egg ci réalité bi nag c'est vrai que pour politique dafa am ay réalité am léeg-léeg ñu egg foo xam ne nii euh, changement day ñëw politiciens yi ñi ci soppee ko bari na mm-hmm. mais euh, ni muy doxalee da gis ne moom am na différence par rapport ak yeneen parti ni ñuy doxee Uh-huh. tey loolu différence la boo xam ne moom ni mu doxee moom bu ko PDS doxee woon uh-huh. kon heure bi du ñu am problème mu. bu ñu day bokk ak du bokk. Uh-huh. ndax euh, Karim Karim may sa la tudd sant Wade doomu Abdoulaye Wade la mais dama jàpp ne peut-être seen parti boobu am na ñeneen ñu ko ci ëpp mérite ñu ko moom moomu. parce que moom ban date la ban date ci nguuru baayam ban période la commencé nekk ministre. c'est-à-dire ñëw di jàpp ci liggéey bi bi bàyyam di sos parti bi les années soixante-dix boobu moom fan la nekkoon. <coughs> boobu ñaataat laa amoon. bu doon moom dafa bokk ci première nit est-ce que moom bokk na ci première nit yi nga xam ne ñoo nekk les militants de première ci kii parti bi. Mhm. mu egg fi mu war a egg tey. ba yor fi pouvoir ba perte ko ba bëgg koo jëlaat. Mhm. mais man je me demande parfois est-ce que PDS bëgg nañoo jotaat ci nguur. Mhm. parce que nag mënuloo am benn candidat boo xam ne. wax dëgg yàlla nee na dañ ko exilé loolu la wax tëj nañ ko bàyyi nañ ko. gis nga man li may faral di wax rek léeg-léeg am na yu bari yoo xam ne tëdd kaso daf koo gën fii jamono tollu tey man Pape Maguette laa wax de man ku ma bëggoon a ci Sénégal gii ma bokk. Mhm. Sénégal gii ma bokk ku ma ci bëggoon a damay lànk ba tëdd ca naaj ba <laughs> ma dem tëddi kaso man moom ma gën a ñu exilé ma ci Sénégal gi ma bokk ndax nag dara gën a metti ñu génne la ci si suuf. sa réew nga dem tëdd bitim réew di wax. et sax est-ce que exil la est-ce que. parce que nga toog fa durant toutes ces périodes yow yaa ngi dem di lijjanti say affaire yaa ngi ci réew nga war a nekk yaa ngi ci say business yaa ngi ci sa affaire bàyyi ba jot ba ñu naan ay un mois quinze jours moo des nangam nga jékki-jékki sa vidéo sànni ci internet bi. Mhm. mel nekku ñu ne la yow yaay président Union africaine <laughs> wax sa wax sànni. Mhm. mais nag vraiment rentrée politique ñi koy def te sérieux ñëpp te bëgg nekk candidat def nañ ko bu yàgg ba commencé seen ay campagne yow mënoo bàyyi ba mbir mi ne këtt na jom na nga ne ci période boobu da nga fiy def sa déclaration première déclaration. Mm-hmm. wax say wax sénégalais dañoo sonn dañoo nangam <coughs> gis nga <coughs> dafa am yoo xam ne. à l'heure où nous wax ñu ko matatu ko politique c'est bu ñëw. naan ñu Sénégalais dañoo sonn kilo ceeb nangam lay jar nangam nangam on en a pas besoin parce que li ñuy dund ñun xam nañ ko ñun. wax nañ ko waxati ko. Uh-huh. wax waxaat olof dañ ne du bari wax mais parfois bari wax la. bëgg fee nekkaat naan ay kilo ceeb mi ngi jar nangam saako ceeb yokku na nangam soxlawul. Uh-huh. fii ñu toll temme li ñu bëgg mooy koo xam ne bu ñëwee moom day indi ay piste de solution cest diir day ñëw daan ne kat yéen sénégalais yi. nangam ji nangam ngeen koy jëndi euh, maanaam euh, ci wàllu économie. wala ci wàllu koom fii ngeen toll. dëkk bi métti waaye nangam waaye man solution nangam ak nangam laa indi c'est-à-dire ku mën a ñëw li mu bëgg a waxee ci gàttal mooy wax bi fooy jaar ngir régler suñuy problème waaye problème yi ñu am jaratul nga ñu ko wax parce que ñun xam nañ ko ña fi jiitu wax nañ ko ba pare. Mm. wax bi rek fan ngay jaar ay piste de solution waaye problème yi lii ak lii ak lii ak nangam la jaru diagnostic yooyu nit ñi def nañ ko ba pare ba xam bi fan la nekk. yow wax ñu maanaam ban jàkkat nga ci am ak ban solution nga ci am rek. surtout jaratuñoo wax nangam ak nangam parce que xamal na ko suñu bopp yàgg. voilà léegi nag euh, euh, ni mu doxee moom. Mhm. ni mu doxee moom Sonko ak waa Pastef loolu laa ne bu doon PDS doxalee nañ ni doxalin bu mel noonu xam nga doxalin bi fond bi yëpp lan la. lan la mooy partie bi warta tudd sant diw. waay waay surtout. warta tudd diw sant diw. Mhm. cest a dire parti bi pourquoi ku sant Wade rek di doomu borom parti bi moom moo war a te bokkul ci militant première heure yi. parce que parti bi ñu koy créé boobu ñaata at la am. pourquoi kooku forcément moom moo war a nekk seen candidat lu tax amuñu ay candidats yeneen yoo xam ne kii bu mënta dem ñu jël ñoo kooku. Mm-hmm. moo tax ma naan parfois je me demande est-ce que sax ñoom bëgg nañu nekk am euh, dem élection mais bu loolu weesoo. Euh, donc. moom mi nga xam ne moom la ñu tàggat est-ce que moom itam bëgg naa nekk président Sénégal. surtout mënoo ñëw élection yoo xam ne nii lépp nee na këtt ne jot nga toog fi nga toog def say video di wax di nangam di yaakaar na ñun dañu lay xaar peut-être moom aussi da doon seetlu da doon xaar lu gën a yomb. Mm-hmm. mooy lan bàyyi ba porte yu tëju ci Sonko ferme rap ak waa Pastef yëpp te am benn candidat. ñoom ñu ñëw. su boobaa nag peut-être moom mu ñëw ñu ne moo fi ses nañ ko fan. xam nga Yàkku si say tax falu dafa xewoon ci réew mi waaye loolu ñiy politique bu yaboo ñu xam ne tuxu na ci réew mi dootu fi maanaam ku yaakaar ne da ngay toog fi nga toog bàyyi ba affaire yi tëju ci ñëpp nga ñëw ñu ne ah moo fi sës président par défaut Sénégal dootu ko am ci guddi gi ñu toog. parce que en 2019 moo fi sës moo fi naroon am. moo fi sës 2012 sax moo fi sës a fala. moo fi sës parce que boobu ñëpp a ngi nekk ci obélisque. waaye ñu def yooyu def di bañak di fippoog di xeex nit ñi di faatoog mhm. am koo xam ne moom dafa duggoon ci biir dëkk bi dem campagne yi foofu it am na fi mérite mhm. ndax campagne yi woon na dem na fu nekk mhm. na Sénégal trop waaye maanaam ci ñëmu demoon di campagne xam nga xëccoo bi entre moo kan la woon parce que ñëpp a ngi woon fii donc moom ña ma doon waxal moom rek la ñu gis pour wax ak moom parce que moom Macky Sall rek moo demoon pratiquement di campagne di wër fu nekk peut-être ak Ablaye Wade bi nga xam ne xëy na tolloon na foo xam ne sax peut-être sonnatu ci woon trop. mais quand moom moment boobu moom Macky rek moo am jotu dugg fépp. ci fépp foofu mu dugg nag ñëw wax moom rek la ñu waxal waaye peut-être bu fa keneen jaaroo ñu déglu version kooku peut-être bàyyi ko ànd ak kooku. voilà mais yaa fi sës. président par défaut loolu faleetul ci Sénégal. jeex na Sénégal voilà ñu daal di yéen nga xam ne ni ñu bàyyi xel mën ngeen continuer ba léegi di like ak di partager euh, li nga xam ne rek moom mooy euh, bile live surtout like yi dafay nekk lu am solo boo leen abonné wul aussi tamit bu leen abonné goo leen ngeen daal di abonné activer cloche de notification pour que ngeen di jot suñu ay live en direct ak suñu ay euh, vidéo ñu daal di ñëw ci commission d'enquête. Mm. bi nga xam ni.